dal leen ak jàmm ubbil yéenekaay bari daanaka la xëy àddu rek moo di dogal yi nga xamante président de la république dal dina koy jël ni ki démb lu ñeel naka wàññiteeg njëgu pa dund gi ci séewum Sénégal loolu nag dafa jot sëkk nag ni ñu son damm nañu taay nañu le témoin yéenekaay xëy na Macky naka moo ngay woyal opération de charmam ya naka mu daal dee tàmbali gannaaw bi nga xamante si dalee nag gaynde yi ci ab xumbaay bu rëy ñu ne a wane rek li nga xamante ni si moo yitteel askan fexe waaye itam duulin bi ceeb bi loolee naka ñu bëri jàpp ne Macky Sall ne nii nag daanaka moo ngi dox ko gëdd Le Soleil yéene naka mbir mi yitteel ko lool ca xëy dina naka daanaka seppi na ab dëgg woo xamante moom la askan wi doon sooxaale muy seeraayu njëgu dund gi naka nee na dund gi nag jamono ji duulin googee bi doon jar naka mille deux cent wàññi na ko mille cent franc litre bi ceeb bi doon jar saako quinze mille naka léegi si 625 subvention jëm ci 32 francs jëm ci ceeb bi naka daal dinañ koy indi ci loolee naka moo ngi xam naka daanu fexe rek ba soutenir ñu baax a baax ñiy def rek production euh, locale jëm ci ceeb boobee nag mesure yooyu naka yooyu la mesure naka yéene kaay bi ne ab incidence budgétaire boo xamante moo ngi toll ci cinquante milliards la ñu dee indil le quotidien yéene kaay des prix ak sucre sec diwlin ci naka la yéene kaay bi xëy fësal le ceeb bi moom wàññi na ko bu baax a baax Les Échos yéenekaay ne Macky Sall ma ko soulager les ménages sénégalais un impact de cinquante milliards sur le budget national maanaam lu budget national bi la ko tolloog cinquante milliards lañ ci dal dee juqi ngir rek fexe dund gi bés bi la jour ca la na su Macky dinay soulager bu baax a baax askanu Sénégal mesure boobee naka ñu dal dee jël indi ñëw na rek si jamono ji nga xamante ni si naka dina baax lool menace sur la farine et le blé gannaaw bi nga xamante ni si à mesure de l'épreuve de la guerre bi am l'évidence yéen kaay ci conseil des ministres ba ñu jëlee boobu le dogal naka la desandi ndax xam na ne énième aje de Macky ndax Macky àllarba la ko wàlluma coppiteeg am samp ab gouvernement waaye nag mu daal bu yéen kaay bi ne énième aje Macky Sall tàggoon na tàggootiwaat a naka taxaw ci biir géej waaye naka dikkaat ak situation politique ba fa am diggante Aliou Sall ak Ahmed Aïdara yéen kaay bi xëy samp ci ab laaj ne ñoom ñaar rek mooy ki nga ci moo amub dëgg lu ci doon li nag coow li moom moo ngi tàmbalee bari bari bari waaye yéenekaay bi di mandat naka mel na ni kuy àtte de ndax nee ci jamono ji naka a Vladimir Poutine nee na teggiwul benn yoon tànkam moo ngay wéy rek di noot ñi nga xamante ni ñoo dëkk ca Ukraine ngir rek fexe bu wane dooleem doole dëkk doxul jàmm laas quotidien ca Touba la xëy gannaaw bi nga xamante ne ab fraudeur moo fa dal dee faatu ca Touba Sëriñ nag dal nañ ko dàqandi nga ni ma lan Modou Lo moo mujjee am ab gaañu gaañu ba tax nag médecin ne dina am ab noppalu ko bu tolloo quarante cinq jours combat boobee naka tax ñu daal koy dàqandi yéene kaay bi naka moom dina dem ca États-Unis ki samedi ngir rek a faju ji Luc Nicolaï nee daal am na ab rupture de ligament foofee nga Demba Gamba Abdou Bakhoum nee na il n'était pas prêt ndax nee na Modou Lo mi paregul woon Khadim Gagnac nee na bëggutoon a bëre ak li nga xamante moo di gaañu-gaañu boobee lu ci doon nak ci jamono ji moom ña doon yaakaar ak a yàkki naka ci combat bi doon dox ci diggante Modou ak Ama Baldé loolee moom mujjee nañ ko dàqandi Modou moo ci jëlee gaañu-gaañu ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg